chantier kër xaside yi dajalewaat na mbooloo mu takku ci suba talaata ji fukki fan ñetti ñett ci octobre atum 2020 muy jéego bu am solo bu ci dolliku di liggéeyu sëkk boo xam ne mbooleem engins yi ak machines yi ànd nañ ci waaye itam mbooloo mu takku ànd nañ ci muy liggéey boo xam ne fii ñu toll am na solo lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Atou Diagne mi dikkal boppam di seet si liggéey bi. étape la boo xam ne bu am maanaa la euh,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 kon sant sëñ Touba bu wér la. ay membre daari Hizbut Tarqiyyah yu am yitte lool ci liggéey bi bokk ci ñoom nag ñu bàyyi ko Ndakaar waaye itam daari Hizbut tarix yi nekk ci bitim réew li ëpp ci ñoom seeni membre ñu ngi ci dëkk bi benn ay bis ginnaaw bu màggal gu mag gi jàllee tey wane seen itte ci amoon yéene tàbbi ci liggéey bi. kon dafa mel li ñu doon joxe li muy baax baax baax ñëw fii ñàq ko liggéey ci suñu liggéey daa gën a daa gën a kaywaat loolu mu dee mu dee ak barkeelu. damay wax ni képp koo xam ne ki nii yàlla dimbali woon na nga tukki ba ñëw ba ñëw da ngaa war a ñëw jaral la nga ñëw barkeelu ci ndax xamoo di nga fekke suba wala di nga fekke déwén nan yeesalaat suñ pas-pas yëkkatiwaat suñu itte kenn bañ a dese dara liggéey yëpp sëñ tubaay bi jaral nu lépp ndax xam na ne bis ba àggee sotti aaju yëpp dana gën a faju muy chantier boo xam ne juróomi weer rek ginnaaw bi ñu ko tàmbalee ak léegi liggéey ci am solo jot nañu ko daaneel lu mel ni souterrain bi war a tàmbali nag sëkk bi ba mën a teg alvéole muy dal yi nga xam ne dana mën a may ñu tabax mu jëm kaw di fàttali ne liggéeyu këru xaside yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides moo ko santoon daare Hizbut Tarqiyyah ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim